salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci nantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalo ak tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla din defal jàmm fu nu mën a nekk dellu si nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu moo Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci Ousmane Sonko tekkaaral gi nga xam ne tekkaaraloon na ko te xam naa ne li ko sabab. mbokk yu bari xam nañ ko benn bi mooy ci wàllu wér-gu-yaramam yaramu sutanteem ak ni nga xam ne tamit wax da yàlla teg nañ ko ko ci ay nattu ak i tiis koo xamante ni tëj nañ ci yow ñu bokk ci sa parti lu mu néew ne juróom benn téeméeri nit a ah, ba ci yow yaa ci des fi mu toll ak ñeneen képp kun jàpp na am nga fi baat wala am nga kàddu wala mën nga convaincre kenn nit ñu jàpp ne loolu mooy seen liggéey loola nag tax na ba yàlla dogal Euh, lool it jàpp naa ne woon ne tekk ba tekk woon la yoon it baax na ci waaye gis ngeen ni génn na démb génn boo xamante ni bu fulawu la bu faydawu boo xamante ni fa mu nekkoon ci xolu sénégalais yi rek day yokk waaye du wàññeeku euh, muy nemmeeku tuuram boobu muy def def na ko. loola nag tax na Idrissa Seck it xam ngeen ne yëkkati woon ne kàddu président Macky Sall yi tamit gis ngeen ne ci koor gi yëkk korite gi yëkkati ne kàddu. Euh, ci émission bi ñu ko dalal RFM tamit wax na fa ay kàddu yoo xamante nii jàpp naa ne sénégalais yi euh, dëgg la xam nan wax waaye dinañ dégg waxi tamit dégg nañ li président wax xam naa ni tamit lu mu jublu tàllal na loxo boo xamante ni tàlli na waaye tàlliwut mooy tàll na waaye tàlliwut mooy su ngeen ci jàppee dinaa defar sama bopp li mu bëgg a defaral sama bopp su ngeen ci jàpput yi tamit dinaa am lu kii ci yéen mooy li nga xam ne mooy eh, li mu ci bëgg a wax eh, Idriss Seck tamit xam ngeen ne génnam yi moom dama jàpp ne Idi moom wax dëgg yàlla da danga koy yërëm sax boo xamee nit dëgg da nga koy ñeewante da koy ñeewante ndax moom xam naa ne diggante bi moo ko xaw a lor mooy diggante muusante gi mu yaroo ak marché mbëkkante xam nga nee na kooku kenn mënu koo nax waaye koo mën mënta naxit na nga xam ne mënoo nax kenn kenn mënu laa nax yow it bul jàpp ne mën ngaa nax kenn boo déggee kàddoom yi fi muy waxee ak kàddu yi Idi ni mu amee woon sens ni mu amee woon important ci askan wi li ci daan fees ci xam-xam li ci daan fees ci ci ci ci ci ci waaye kàddu yi wax yàlla kàddu yi woyof na wàcc na ba nga xam ne daal euh, doy na waar lool lool lool. Euh, ba tax na jàpp nañ ne kàddu la yoo xamante ni kàddu la yoo xam ko yu yéeme la beneen bi ci desaat mooy Ousmane Sonko jàpp naa ne tontu na ko. mooy li wax ci kàddu opposant yi nga xam ne moo am muy opposant bi wax ne moom moo jiite opposant bi xanaa tey la koy mën a wax waaye bi muy nekk ci ci ci ci ci pouvoir bi loola booba lan la jiite moom bàyyiwu fi kenn ci partem ku ko ku sax ñoom amoon ñëpp dugal na leen ci partem dugal na leen ca mbuus gi ànd ak ñoom ñu dem nekk mburu ak soow bàyyi fii mu widdi xanaa mbir biteel kay kenn mënu koo bàyyi mu widdi ndax biteel faaw moom mu def ndox wala mu def air waaye biteel moom mënta widdi kon bi mu fi bàyyee opposition bi dem fële kan kon kon la kan la dénkoon opposition bi ak kan moo nekkoon toppoon ci nit kay da am ko jiitu am ko la topp am ko ca topp boo fa nekkatut ke toppoon ci yow ñëw topp remplacer la député yi sax loolu la ñuy def bu demee ba député bi yi faloon bu demee ba kenn ki nekkatu fi wala mu démissionné dañuy jël ko ca toppoon même bu dul woon loola sax fi mu toll même bu nekkoon opp ko jiite woon opposition bi ci ay këyit Euh, jiiteetu ko ci xol te ay xol moo am solo jiiteetu ko ci xel Ousmane nag léegi moo ko jiite ci xel moo ko jiite ci xol te Ousmane sax xëccantiwut loolu moom li muy li muy xëccoo mooy nekk chef la l'État loolu moo nekk loolu lay xëccoo loolu lay rewe loolu lay veye foofu la ko sénégalais yi bëgg yóbbu waaye fii nu ko yóbbu doy na sëkk Ousmane moom lépp luy pouvoir benn po benn benn ndomba tànk la ko nit ñi deseel mooy def ko président mais beneen budut boobu soxlaatu yooyu yin ko war a def yépp def nañ ko ko mooy def nañ ko maire def nañ ko député def nañ ko kii fi mu toll leen ko deseel mooy yóbbu ko pale mu toog noppalu waaw toog ci noppalu seet nan lay liggéeyee sax loolu lan ki Idi nag usmaan wax na ko ay baatam yi daan jax di léeb nit ñi ak di jéem a nax nit ñi ak di leen gaaruwaaleeg di leen wax ay baati wala Ousmane moom rek wax na ko partab yàlla bi nee na ko xar yi de xari tabaski yi de bu nu àndee wala coggal yi bu nu àndee xar ñoo àndandoo waaye nu àggee ne nag xar mu nekk dina am xam la muy jar ku ci nekk dina am xarma la man xar mi lan la mooy lay peese lan lay jar yaakaar naa xari tabaski kii boo demee ci coggal gi di nga leen gisandoo waaye du caage ne yëpp a bokk kii xale yi sax dinañ koy wax naa ñoo bokkoon école waaye bokkul woon classe jàpp naa yéen a bokk classe politique bi waaye bokku leen kalaas nag Ousmane fi mu nekk moom bokkoo fa ak yow Idi jàpp naa ne boo nekkee ba heure bi ngay xëccoo loolu ak di ci wax sax mooy ñàkk xam sa bopp te Idi moom wax dëgg yàlla nit ñi moom xam nañ ko moom moom dafa mel ni moo xamagut boppam moom daal dafa naa ne waroon na jàng boppam pour xam ko waaye sénégalais yi xam nañ la defoon nan la fi ab Ablaye Wade nga dem campagne ñu def la fi deuxième nga ñëwaat ci ab Ablaye Sall Ablaye Wade Macky Sall 2019 ñu defaat la deuxième sénégalais yi kay xam nan la yow ko yaa war a sa bopp ba xam sa bopp boo xamee sa bopp nga dikkaat wax na waaye sénégalais xam nañ la <coughs> beneen bi ci desaat président Macky Sall ni mu waxee ne Euh, Assane Gueye bi mu ko invité mu ne ko gedd sa yaay aye Babacar Fall da cee def révélation bu am solo <clears throat> boo xamante ni ku ko dégg da ngay xam ne kii nag ku muñ lu yàgg la boo xamante ni lim doon xaar ak lim doon mébét mooy ñuy wax loo xam ne dana amal Sénégalais yi kii mais ko gedd sa yaay aye te yaay yi di fégalante bu yaay aye tey yaay aye suba <clears throat> te jàpp nañ ne ci kanam tuuti te loolu bu la ko mos a wolof mosee wax mooy dalaa wax na la dangaa gedd sa yaay ay ku gedd sa yaay ku gedd mooy dangaa gedd añ bi sa yaay moom daana wacc xooñ daana wacc mbëggar fell moom nag moo aye waaye nag yaay yi dañuy fëgalante rek tey bu yaay kumba aye bu ëllëgee ngóone aye ñu ngi seet nag aye ngóone gii moom jàpp na ne dina neex waaye kumba moom ayam gi moom neexul moom na ma kumba yi baal <laughs> walla boog na ma kii soxna bëtóor moom ayam neexul moom bëtóor xañ na bu kumba ñëwee ayam neex neex wala beneen bi ci des eh, nga dégg mu ne eh, eh, président Macky Sall mu ne opposition bi nañ ñëw wuy si ma buñ ma wuy si wut nag dan maa war a wuy si déedéet da ngaa war a woote rek waaye wuy si moom du obligatoire yow kay da nga naa damaa war a woote li ma war man li ma waroon def naa ko ñoom li ci des ñoo ko war te dégg naa opposition bi tamit bu ñuy wuy ji Ousmane Sonko mi jiite opposition bi nekk ci kii ak moom mi nu gën a lottal moom moo war a condition yan la mën a waxtaane mooy dinañ tudd tijji détenir am danañ ko bàyyi mu doon candidat président na Sall du doon candidat euh, euh, kii bi nga xam ne parrainage bi ñuy gàllankoor nit ñi ak yi ñuy wax ñu toj la opposition bi xaw ma trente cinq trente et un xaw ma lan kii bi loolu dañ ko war a dindi ci kii bi yooyu nag Ousmane mi nga xam ne moom moo toll ci kii moom lañ war a jiital muy def ay proposition proposom yooyu nag ci la ñëpp de àndaale muy F24 boobu beneen bi ci des yàpp naa ne affaire yaa ngi démarré William Abdoulaye Wilane nee na fële nga xam ne moo di département kii àndatun faak affaire tàggoo nan te tàggoo boobu sax jàpp naa ne mooy bu dëgg bi fi mu toll moom président Macky Sall moom du opposition beeg ñi mu coalition lay tàggool waaye ña nekk ci biir APR bokkoon APR sax dina tàggoog ñoom ndax xam nañ li muy bëgg a déclaré xam nañ li muy bëgg a déclaré li muy bëgg a def dinaa Idrissa moom tàggoo na moom ba jël Abdoulaye Daouda Diallo jox ko ay ministre am génn na idi nag du génn moom téye làmbañ ak idi moom bay la bu génneet daanaka na ma yàlla baal bëgguma wax ba waaye su génnee dina wax dina wax ndax politique moom wax la te idi foofu la foore sax mooy moom amul ñu muy mobiliser mais kii am loolu nag heureusement dafa dem ba fel ko di ko toj di ko fell ba kàddu gi amatul solo waaw bu doon aw doon ab gura dañuy wax nag ngàddu gura fi mu toll moo ko dese ci kàddu ndax parce bi mu génnee da yëg ne wax naa li problème boo xam nit ñi jékki woon nañ ko diggante ay tarixa yeesalaat na ko diggante nu mu tuddati euh, kii maa ngi dégg doomi siñoor ji di ko tontu naa la lam doon wax dara lu ca doon dëgg xam naa moom it mer mu yàgg la moom it dafa mel ne dafa mel ne day politique wala déet Babacar Fall kàddoom yi wax dëgg yàlla kàddu yu responsable la kàddu la yoo xam ñoom la nit ñi di xaar ci journaliste yi boo gisee nit ñi bañu nu journaliste si mais danoo bëgg ku leen di waxal dëgg ku leen di waxal dëgg nekk seen kii mais li gën a metti mooy nga xam dëgg ba noppi wóoyu ko fa teg ko fa loolu la nit ñi mën a ndax jamono bi moo metti dafa metti xat mooy li leen ci mën a génne mooy kuy def dëgg di wax dëgg di leen defal dëgg loolu lañ kii mais ku jël dëgg di ko dëggaate nag nit ñi dañ lay bàyyi moo tax waaye journaliste yi ku nekk xam na ne seen responsabilité rëy na ci réew mi mooy koo xamante ni wax na ne yaay deuxième pouvoir wala troisième pouvoir kooku tuuti woo cim réew tuuti woo ci Babacar nag ku dégg kàddu yi nag xam ne kàddu yi ku ko àgg nag fa mu sëse nag fa mu sëse foo xamante nii nag wax dëgg yàlla nag moomatul bokkoon dafa war a ñeppi gémmiñam dafa war a wax nag li nekk ci xeli nit ñi waaye bañ a wax li nekk ci xefi nit ñi waaw dafa am koo xamante ni dafa fekk woon ku faatu nit ñi di ko tagg di wax nangam nangam ab dof la sax neen ko waxee mu ne leen bàyyi leen li ci làmmañ yi wa te wax li ci xel yi li ci xel yi mooy wax dëgg gi dëgg gi euh, loolu daal mooy li nga xam ne mooy lu kii la Ousmane Sonko nag jàpp naa ne nii mu def baax na na xool ne xam ne fi mu jëm na na gën a moytu rek na gën a moytu rek ndax moom euh, dégg naa naa ne moo yor caq bi waaye Ousmane moom bu moom bu yoree caq kii bi tamit nu mu tuddati euh, yoree caq tamit ñun càq peme yor Ousmane moom peme la yor te peme nag muy caq bi gën a riis ci kii bi koo xamante ni daanaka ak nguuram danga ngaa xaaj genn wàll yëpp daanaka xaw koo jël yow booy dem yow la nit ñi tàcc yow la nit ñi sarxole yow la nit ñi jox xaalis yow nit ñi may yow la nit ñi euh, di la di la di la di la di la di la tàcc di la di la favoriser te président Macky Sall fi toll war waxuma la fii rek waaye biir dëkk bi rek problème la fa biti dëkk bi image su Sénégal fi mu toll ni mel mënoo toog semaine déggoo ñu manifester mënoo toog semaine ñu génn tàntam li ñuy taal ci pon li ñuy yàq ba image su fi mu toll kenn bëggatu koo gis réew mi daanaka eh, émigré yi ñi war a ñëw Sénégal ñëwatuñu ñun bu ñu demee ña nekk sénégalais di sénégalais fanu dem dañ faa xat ndax xat ci réew mënta paase nga dem nit ñi reconnaître bu ñu lay wax lu ay ay ñaawteef wala ay kii la ni émage yu ñaaw la ñuy sulli sa biir réew duñ fa wax dara loo xamante ni lu kii la loolu vraiment metti la def moo tax daal vraiment ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ci élection yi ñu def ko ak jàmm ki yàlla jiital ñu jiital ko Sénégal jëm kanam